julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ndokkeel sëñ Mahmoudul Fadal Bousso ci tomb biñ ko joxoon mu indi ci leeral yu am solo lool ci discours wala discours murit bi mu wax lu am solo ndax dafa am lu xewoon ci murit gi loo xam ne da leen a mayoon valeur bu am solo leen respecté bàyyi leen xel may na kàddu nga xam ne kenn na koy wax mbaa comme ko wax loo waaye léegi nag ñëpp seen wax ma kenn ko da ñoo xam sax lu mu ca a wax kenn nekk day indi sa xalaat ngir ubbi ko gi biir ubbi ko nga xam ne kay wax wër wax nam koy waxee itam waru ko naa waxee fa nga waxee waru ko faa waxee loolu si moo indi jaxasoo yi am yëpp ki wax wax nag soo waxut widd boobu mooy may ka wax muy wax te dafa mooy ñi war ñi war a wax ñi ci ëpp dañu waxut ñi war a wax su fekkente waxut ka wax moo koy wuute ca balaas bu wax lu wax wax ngay nu mu indi jafe-jafe yu bare bare bare la ca topp mooy discours yi ñuy jëfandikoo mooy la ca ëpp dadul da dadul dëppoo ak circonstance bi ñu koy waxee maanaam ñi nga war a waxal nga indi benn discours ba bu bokkut ak bi nga war a fa ak ñoom lool man ngaa wax ba nag la nga wax kenn du ca jariñu ñu xam ne daal kon jamono bu nekk dafa am lu mu laaj ku ca war a wax ak nu mu ca war a ak la mu war a wax su ko defee fekkente ni lépp teg nañ ko ca barab ba ñu war a teg rek lépp day mën a am njariñ te kon bu jar guddal ndax li mu wax leer na nañ xanaa suñu borom bu gën a yokk xam gën koo dëgëral doole kàtt nag wér ndax bokk na ci nga xam ne ñu ñu ñu war a wax lañ ñu sol lañ mooy wax lu leer nañ ñi loo xam bu not day leer ci bopp ni jëpp man mes ko jëriñu yàlla na suñu borom bari ay kemam ñu ngi jég lu baax da nga yàlla suñu borom wàllu wënde ko tawfiq ak seen xarit bu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu